jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokki juróom-ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bismilla ci xibaaru timis gi li ci gën a fës tam yéenay faram-fàccee ko di waaj a dalal fii ñaari fan sommet francophonie euh, muy jotaay wi mandargal euh, wi jotaay kon wuy dajale mboolem réew yi la kàllaamay tubaab euh, sommet francophonie nag mënuñu koy waxte waxuñ ci doomi aadama yu ci wàlluk aada ñu bari si ñoom deg jàpp ne mbir yi sentiruñ ko na mu waree ci biir xibaar yi daa wu sax ci wàcc ci mbedd mi yëngu-yëngal su fekkente ni eh, seen i payoor yi ñu leen amel fay ñu leen ko ab taxawaay ñaxtu ci suba tey jile ci buntu mairie bu Dakar ci biir xibaatam yaa ngeen ci dégg leeral eh, eh, léegi mu toll daanaka ci ñetti at ñi nga xam ne ay la ñu toll ci dimbu takk dañoo gonto tey ji daal di amal ab taxawaay ñaxtu fii ci buntu makkaana groupe Walfadjri la ñuy sàkku mooy ñu fay leen seen i bourse benn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 ci xibaar yi Sénégal di waaj a dalal fii léegi ñaari fan sommet francophonie mu jotaay wi dajale mboolem réew yi nga xam ne nii euh, ñoom ñooy làkk kàllaamay tubaab ci àdduna bi sommet francophonie nag mënuñu koy waxte waxuñu euh, ci doomi aadama yi yëngatu ci wàllu aada ak cosaan ñu bari si ñoom nag jàpp ni euh, mbii daal santiiruñu ko na mu waree nguur gi waru garam mooy mu taxawu leen jàppale leen waaye loolu yi des na ca village francophonie ba nekk ca Grand Théâtre Marguerite Rosalie Ndiaye doxantu ju woon na fa ñu teewlu ko ci reportage alarba ñaar fukki fan ak juróom benn ñu doxantu ca village bu francophonie nekk ca grand théâtre mu xumb lool artistes yi fecckat yi ak itam ñi yëngu ci wàllu cinéma ñépp a nga fa ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu jox leen seen cër ci francophonie bi culture mooy dundal xel mooy ñamu xel mooy ñamu esprit donc francophonie bi man bu ma soyoon liñ ko commencement bi ko ñoom Léopold Sédar Senghor commencé woon euh, euh, culture boobu man defe naa ne moo ëpp moo ëpp solo ñu def ko francophonie de culture parce que loolu mooy dajale peuple yi. politiciens yi ñoom ñoo bëgg delloo ginnaaw culture parce que en général bala ñuy soxla euh, waa culture rek ñu am activité bu xew am président bu ñëw wala ministre bu ñëw boo xoolee par exemple fii y a à peu près trois wala cinq troupes yoo xamante ne ñu ngi répété ça veut dire que ñoom amoon na lu ñu jël liggéeyoon teg ko. donc je pense que ni artistes yi am na am na am nañ am nañ seen place ci francophonie bi te bëgg nañu aussi jël seen place mais foo ko que bi aussi jàpp si pour que mu mën a dox. yooyu la artiste ñu ngi ñaan nguur gi ak itam ñenn ñi nga xamante ne mën nañ ko ñu dimbali leen ndax aada ak cosaan mën a delluwaat ca place am. état war na jàppale ci culture tey état ak ak les mécènes ak même un jeune cadre tey un jeune cadre buy liggéey am këram. tabax ko ba mu rafet mais war na mën a jënd ay tableau africain ay tableau sénégalais ay ay objet d'art yu Sénégal yi defar. yan ñoo des pour pour développer que c'est la politique je le moom bu lu lu lu dama koy wax ci kaw mooy que ni politique euh, suñu ministre de la culture ak ñeneen ñi nga xam te ñoo nekk ci ginnaaw ñoo ñoo ci war a jàpp pour pour pour culture bi gën a mën a développer wu mais artistes yi ñu ngi toog di xaar ku nekk am nga sa œuvre. fi mu toll nii nag ñi yëngu ci wàllum aada ak cosaan ñu fekk leen ca village bu francophonie ñoom ñu ngi wone seen njàmbaarte. di xaarandi itam yenn manifestation yi nga xamante ne ñoom la ñu war amal ci bésu francophonie bi. gannaaw bañ leen orienté ci université du Sahel ak léegi mu toll daanaka ci ñetti at ñi nga xam ne ay étudiant la ñu toll ci lim bu tàkk dañoo gondotee ji daal di amal ab taxawaay ñaxtu fii ci makkaana groupe Walfadjri yi la ñuy sàkk mooy ñu fay leen seeni bourse benn fan la leen appal lu ko moykat ñoom taxaw nañu temmee ngir xajamal sommet francophonie bile Moussa Diop moo wax ci seen kàddu teewlu ko ci micro soxna Fatou Diouf état bi daf ñoo jël orienté ñu ci privé yi ñëw jàng ci foofu ci privé yi mais bu ñu xamoon ne ñoom bu ñu indee ci privé yi nii lay nii lay nii lay demee kon duñ ñëw ci privé yi te ñun demandé wuñ leen ñu orienté ñu ci privé yi ñoom ñoo ñu fa yóbbu il n'avait pas le choix amuñu woon choix moo tax yóbbu ñu foofu dañoo bëgg nag état gouvernement Sénégal surtout man je m'adresse au président de la République Macky Sall laay mu xam ne ñun ñi jeunes yi ñun ñoo ko fal année bi muy falu 2012 année boobu ñun lañ nekk di def suñu bac def nañ sacrifice yu nekk pour mu ñëw nekk la république kon moom na tourné ñëw wax ak ñun ndax sonn nañ torop bëri na ay yoo xamante ni maa ñoom ñoo bokkoon classe université du Sahel bàyyi amatuñu moyen amatuñu moyen ba ba na koo xamante ni maa moom ñoo bokk université du Sahel mais man tamit damaa sonn parce que chaque jour bu ñëwee nag wax ma ay problème am ma ko si yooyu dañoo bëgg nag ministre bi mu réglal ñu suñu problème 24 heures lañ ko may li ñuy wax nag waxuñu ko pour dara état Sénégal lenn moo ko yàq fi mu ne nii fi wax yàqoo dara rek duñu la régler say problème te ñun ay yàq yooyu pare taxuñoo jóg nañu fay suñu xaalis bis bu ñu lijjandiwu suñu problème tey suba incha allahu rabbi francophonie bi ñuy wax moom la ñuy organiser na leen leer du fi am liggéeykat yi nekk ci conseil régional Dakar bu woon kontaan nañu ñu ngay xóob sax ci wàcc mbedd muy yëngu-yëngal su fekkente ne seen payoor yi ñu leen amel fay ñu leen ko ab taxawaay ñaxtu moom la ñu amal ci suba tey jile ca buntu mairie bu Dakar moom Antoine Ndour Louis Joseph Faye reportage seeni salaire ak ay prise de service wala ñu wàcc ci tali bi daal di tàngal loolee di kàddu liggéeykat yeewoon nekk ca conseil régional bu Dakar. premier ministre tout le monde fay leen ba décembre problème bu am moom moo ko wax. moo moom moo ko wax. moo ko wax ñëpp dégg ko Sénégal yëpp dégg ko moom moo ko wax ba ñu defee ñu lever suñu moo moo moo de grève ñu feeñ suñu salaire bon ñu demaat ba fi mu toll ñu ngi si dee deux mois gisuñu suñu salaire ah foo dem pour ñu jël la ñu ne xalifa nii du indi problème yoo xam ne ñun xamuñu nan la ñun nag la ñu mënoon mën nañ ñu ëpp loolu la ñu mënoon pour def ko doon ko def mën nañ ñu ëpp loolu mooy. duñ defoon grève de la faim amul taal dëkk beeg yu kenn xamul nëbbatuwuñu ñun ñu ngi ne fàng ñëpp ñu gis. ndax nag jamono jooje ñu daal di tënku ci ne dañuy janoo ak maire bu Dakar di Khalifa Sall te itam jaxal na leen sax bés bu ne ñu daal di dem ca hôtel de ville euh, taxaw fa ba keroog ñu leen di fajal seen i ñaxtu. ñu fayul mais lu gën a la ñuy def te nëbbatuwuñu ñu ngi ne fàng di wax duñu génn fii te Khalifa te Khalifa wax lu leer Khalifa nañu wax moom da koy def wala du ko def pour mu leer. suñu paree gouverneur a ngi fi parce que doon nañu dem ci moom temps yi mais dañuy feeñ xam nga li mu wax ni bu baax bañuñu ci dara ki ñuy waxal mooy gis nañu benn ministre boo xam ne naan fay nañ ñu suñu nangam ak nangam benn Omar xam nga nangam na nan la demee noonu lu mu wax day kusit quoi loolu fan la tegu nañu wax dëgg ñu fay ñu suñu salaire. ex travailleur conseil régional bu Dakar ñoo ñoom amaloon nañ taxawaayu ñaxtu ci àllarba bi euh, foofee nga xamante ni moo di mairie bu Dakar euh, tax nag jamono ji ñuy woote wàllu tiitam euh, jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoo di. jërëjëf soxna moom Anta ñu ngi lay sant lay gërëm góor a xuma ak ñi ñoom ñu ngay fësal seenum yàqare jëmale ko ci poste de pesage ba nekkee fële ca jam ñaajo gannaaw ba ñu sole seen i daal dem ca barab ba ngir nemmeekul mbir yi seen bopp waaye la ñu fa fekk nee nañu euh, moraw ak càcc góor a xuma di saako ci kilifa yi ñu xoolaat machine yi euh, ndax doyu leen góor a xuma ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna daje bi ñu am fii te bokkoon ci bi ñuy waxtaan ak gouvernement bi maanaam wàcc ci terrain bi xool da cee bokkoon te def ko gouvernement bi jox ñu accord pour que tey jii ñu ñëw ñun ñëpp ñun ak gouvernement bi ñëw xool gouvernement bi dafa am représentant ñu ñëw bi ñëwee tey jii ñu xool démb am na benn am na benn camion boo xam ne ko plomé démb ñu ne ko desal foofu mu des fa tey jii ñu ñëw nga dañ koy peesaat ñu bañ ñu ne kat peesaan ñoo ñu bañ ma finalement xam naa seenu kilifa ñoo leen peese leen ko mais bi ñu jógee mu yëg ci kaw waa ji bi këyit gi war a génn supérieur am mi toog ci wetam na ko annulé ko bu génn këyit gi donc ça veut ko que kon këyit gi naroon génn tey montant bi ci nekk du bokk këyit gi nekkoon démb léegi nag loo tax ñu ne la comme léegi nag këyit gi mënul génn ñun mënutuñoo peese waat danay rendre compte ministre bi nga xam ne moo ñu santoon lii ñu bokk ci protocole d'accord bi ñu dinañ ko rendre compte que ñi ay sàcc lañu Afrique pesant ay sàcc lañu. ak ah, kon xam nga dañoo amoon ndigal ci ñoom pour ñëw xoolal suñu bopp te bañ koy xool tamit yaa ngi fi gis nañ ne la baaxut kon faut que ñu waxaat autorité bi nag lañ gis baaxut loolu tekkiwul ne nag dañ ne yasaat na yàcc dañ ko koy wax ba pare nag suñu matuwaay ñu war kaa jël damay bëgg population Sénégal xam ne ñun levé wuñu moo door ba pare ñëw def lii ci biir négociation bi visite tey bi da cee bokkoon tey nag xool nañu gis na ne dara baaxu ci dama koy wax na waxaat que les services Afrique Peuzat c'est des voleurs c'est des voleurs. Ah oui. gannaaw bu ñu ko joxe ña baramu tuuma ne dafa akimoo carrière bu nekkee fële ci Tivaouane Peulh teg ci loxoom la fay génne ci koppar mu tàkk ci lafal sërëm lànk ni euh, du ci sédd askan wi jii ñi ànd ak soxna Papa Mayel Thiam ñu ay ci lëf kii seen i kàddu lu ñu yëkkati daal di weddi lu ni mel euh, teg ci joxoñ ab baramu tuuma meeru Tivaouane Peulh ñàgg ne luy njig njàgg moom yéeneem ak bëgg-bëgg mooy teg loxoom ci carrière bi moo tax muy yónni ñeneen ñuy dal ci seen kaw Nazib Sagna nag doxantu ju woon na fa ñu teewlu ko ci reportage affaire carrière Tivaouane Peulh fu mu nekk nii dafa gën a am doole ndaxte bu waa dëkk bi gën na pour laaj que ñu entreprise arrêté di jël seen suuf bi te tamit ñu laaj ko politique sociale bu ñu def euh, baaxul fu mu nekk nag waa entreprise EDTS ñoo jóg taxaw pour wax ni ko ñoom lu ñu def si dëkk bi dëkk defu fii te nee nañu sax lu bëri Abdoulaye Diallo ku nekkoon porte parole euh, waa dëkk bi moo doon jël seen xaalis nduglu kenn si ñoom. te man sama ñetti morom yoo xamante ni yàlla def na ay nit ñu manqué lanu waaye madame Thiam nekk na koo xamante ni daf noo ñëw jël nu liggéeyloo ci carrière bi ngir jàppale nu kon li ñuy wax daal mooy madame Thiam ci boppam euh, dañuy ñaan yàlla mu continuer Tivaouane Peulh def na fi politique sociale boo xamante ni vraiment ku nekk mu ngi cee gis boppam même Ablaye Diallo am na benn bis mu taxaw ni madame Thiam dama bëgg nga jële fi ñi nga xamante ni wax bu ñaaw naan ay lafañ la noog euh, dund ay nit ñu mat waaye madame Thiam daal sur le volet social def liggéeyam. problème bi pour waa entreprise EDTS nag dafa mel ni am na ñu nekk si ginnaaw ndaw yi di leen pousse pour ñoom nag entreprise EDTS ak carrière bu mu yore fii si Tivaouane Peulh moom rek moo tax bi xaalis dugg fii si dëkk bi ñu déglu kenn si. le maire ba de Tivaouane Peulh moom moo moom carrière ñàkk soom objectif am lépp mooy na fexe ba tëj suñu carrière wax na ko te mu ngi koy dem ci kilifa yi di xeex pour am loolu jël na suñuy élément ci ñun yóbbu leen jox leen ay poste ci biir mairie bi. ab Ablaye Diallo dafa ne moom daf koy jël su ko jëlee mu yóbbu ko def ko chargé de mission dans cas bii lépp moo waral lii pour xañ ko Tivaouane Peulh ndax son propre intérêt mais ñun ñu ngi liggéey am jàmm nañu bàyyi ñu liggéey. bu ñu seen ndaw yi nekk fi si Tivaouane Peulh nag ñoom loolu lu ñu wax moo di bu doon dëgg la sax entreprise day versé xaalis pour politique sociale bi ñoom nag gisuñu ko ndaxte Abdoulaye Diallo rek moo doon jël te ba léegi indi fi dërëm. taa nag dafa baax pour dëkk bi ñu kenn si ñoom. dañ ko nax si njëlbeen parce que carrément li ñu ko wax moom bu man dama ko wax lu leer naa ko carrément bu jaaroon si ASC wax ko ñoom lu mu war a waxee du dox nii parce que Abdoulaye Diallo bu demee ba jël yenn ASC jëm leen manipuler ñun mosuñu Abdoulaye Diallo mosuñu wax yëguñu ko sax yëguñu ko ñun ASC mosuñu toog wax ñoom pour wax ak moom lu jëm si kaw la carrière franchement parler man dama part man mosuma mosuma gis ñun mosuñu ko mandaté la dame bu waxee bu waxalee yàlla mosul mosul mosul yebal ASC kenn Ablaye Diallo moo ñëw ne pour jàppale ASC femme bi day jàppale ASC mais xaalis boobu muy jàppale ASC ñun mosuñ jotuñu si un franc. entreprise bi EDTS nag fu mu nekk nag ñoom dañu taxaw nee na que duñ nangu mukk ñu defal leen chantage ak tamit extraction de fonds maanaam jël seen xaalis def leen chantage bu mën a jël lépp lu ñu am ñoom nag ne nañ ko bande Abdoulaye Diallo bi dafa dundu si waa dëkk bi te ñoom duñ ko nangu fii si Tivaouane Peulh nañu sañaay jaajëf Nazib Sagna ñu ngi lay sant di lay gërëm coowal patente nag juddu fële ca marché penc nekk ci jàmm gën si ñi di commerçant yi ñoo jóg di ñaaru taxawaay seen mer ba gannaaw bu mu joxee digal daal ngir ñu tëj seen i cantine ndax la ñu lànk ni duñu fay patente ndax cher gi mu seer balaa nga ne naam nag da nga ne mënuñu leen dëkk di leen fayloo juuti ba noppi te fekk na seen marché bi amul ndox amul courant eh, teg ci wan ak yooyu lii ñuy suturloo daanaka dara baaxu si eh, sunu rey eh, sunu xibaar yi weesu déggeen ci reportage gi ci Théodore Semedo def feebar faju doon doon lu jafe lool ci dëkk bi ñu naan dawaa ji ma nga nekkee fële ca diwaanu Tambacounda askan wi ku ci daanu feebar wala nga toll ci mat lu nekk ngay daj ay charrette wala sax ay moto jakarta la ñuy jël ngir dem l'hôpital dawaa ji ak la fay yeewoo ci doomi aadama ndox amu fa courant nag noonu yoon moom na ma rey dañuy dem ca Tambacounda fekk fa Alassane Diallo. bërëb fajukaay bi nekk ci dawaa di jonkanteel ay jafe-jafe yu tar juróom ñeent téeméeri nit yu fay yeewoo ñi dëkk ci fanweeri ak ñaar gox goxaan yi te di fajoo ci bërëb bi di dund lu métti mbir mi jéggi dayo tax ba infirmier chef de poste bi mer ba futt yëkkati ay kàdduwam di ñaaw lu ñàkkum ambulance ci diwaan bi jigéen yu wéri li ak ñenn ñu feebar di yéeg ci sareetu mbaam walla fas walla dem bay yéeg ci ay moto dawaadi 87 euh, kilomètres. yi nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu rëy la population yu bëri na fii donc am nañ fi poste de santé bu bees comme ni ngeen ko gisee. ambulance 4x4 clandre crisseurs yi pour ñu jógee fii jógee Tamba ñëw jël fi malade maximum mun nañu def 3 heures ba 4 heures de temps surtout jigéen ñu wérul ñu matu pour ñu accès am accès ci hôpital bi euh, moyen de transport yi développé ñu fii de telle sorte que bu ñu ñëwee ay charrette la ñu ñëw ñoo xam ne sax moto lañ leen ci teg. Eh, comme mbir yàlla mooy loolu rek ñen neen ñi sax dañuy mujjee am doom ci kaw ci ci yoon bi au euh, ci yoon bi donc dañuy mujjee woo suñu suñu matron yi ak suñu àndandoo yi pour ñu dem jàppale leen secourir la andi leen ci poste de santé bi. gannaaw ba feebar post bi. gën a tar di wéy di sukaraat. dem beeg dikk bi ak ñàkkum courant doon leneen lu métti ci diwaan bi. vraiment yoon bi baaxul baaxul te pont yi commencé nañ dagg. mën a def pour andi euh, ñu fi courant parce que soxla nañ ko. tey nag waa diwaan bi téye seeni loxo di naan wàll ci nguur gi. Ah, nguur gi mu jàpp ci loolu pour vraiment euh, saafaral euh, jafe-jafe yooyu. ñu nemmeeku ay wolof ak ay soose ci dëkk bi nga xam ne ne dawaadi mi ngi bokk ci Koussanar toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom ñaar kilomètre ak Tambacounda ñu fay yeewoo seen xam-xam màcc ci mbéy mi ñu nemmee ci dëkk bi luuma bu fay am ba tax ne waa gox goxaani di fa daje. Alassane Diallo Tambacounda rajo télévision Walfadjri. jaajëf Alassane Diallo ñu ngi lay sant la gërëm wax ci wàllu ko politique dem ba ci diwaanu Pikine ndaw ya ne te fare ci parti bii di APR ñi ngay fësal seenum njàqare jëmale ko ci kàddu yooyu li nga xam ne njiiti réew ma woon met Abdoulaye Wade yëkkati na ko euh, jëmale ko ci njiiti réew mi Macky Sall lu ni mel nag dañ ne ëpp na te duñu ko bàyyi mu jàll euh, takk nañu taxaw nag fas ànd ak Macky Sall ngir jàmmarloog moom loolu yi ñu ngi ko fësal ci ab ndaje mu doon seq ak taskatu xibaar yi Omar Ndoye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo lu dul doomam moo tax tey propos yi mu xam ne tey nekkul loo xam ne nii un ancien président maanaam koo xam ne askan dafa am si yow jiital la tey nga nekkatoo nga ne yow tey da yàq affaire yi quoi maanaam da ngay yëngal gaal bi responsable nekk na loo xam dañ koy ñaawlu trop trop trop trop parce que un un ancien chef d'état du mel noonu gis nañ Abdou Diouf bi mu fi jógee si nguur gi gis nañ tey un homme d'état la mais loolu kenn xamul lu muy nuróol ànd ak ay mais làqu benn màgget boo xam ne ni 88 ans la am ak loo xam ne ni kenn xamul stop la kenn xamul ñaata la naan ngay dañuy làqu ginnaaw pour di xeex pour jël nguur gi te nit ñi jëloo nguur gi yëpp demuñu tey pour wax ak askan bi ne leen suñu programme lii la demuñu waxaat askan bi ne lii lañ yaakaar def pour Sénégal dem wax askan tey lii mooy seen i problème en tant que jeunesse politique dañ porté combat boobu noonu comme ni kon donc tey dañu nekk au di am incapacité di mën a faire face Abdoulaye Wade donc tey la yaa yaakaar naan tey la war a gën a mën a taxaw pour ànd ak le président faire face Abdoulaye Wade division Pikine nag loolu du ma si wax parce que politique moo ànd ak xiiroo ak ŋaay des ngeen ànd suba ngeen jaar nii mais su essentiel bi jotee dañu xam ne Pikine jóg na. ab délégation bu tàkk bàyyi ko fële ci réewum Iran ña nga nekkee woon suba tey fii kóllëre ak kolti gi mësa dox seen diggante ak El Hadji Sidi gi Samba Ndiaye Mami diggante Sidi Lamine Niass ak réew Iran yàgg lool ci jamono bu muy xelalee njiitu réew ma woon di Abdou Diouf kii di Sidi Lamine Niass doxoon na jéego yu am solo lool ci diggante Iran ak Sénégal wante ba Abdou jóge ci bopp réew mi itam teewul Sidi Lamine Niass wéy di dox jéego ngir rataxal diggante ñaari réew yooyu. Saïd Mouhamed Jawar Abdul xasim nekk doomu Iran wante itam nekk fa kilifa. ci wàllu caada moom nag mu teew Sénégal ci waxtaan yi nga xamante ni comité d'organisation bu màggal bu Tuuba moo koy amal jëm ci wàllu tasawuf moom nag nee na mënul teew Sénégal te jaarul Walfajri nemmeeku si ki nga xamante ni mooy siidi Lamine Niass wante itam delloo ko njukkal jina euh, li an nu'lin shukrana al akh aziz wa oh, euh, jami euh, nee na bi mu fi ñëwee gis na Sidi Lamine ñas xamoon na ko lu yàgg gis ay taxawaayam ak yëpp waaye bu mu ñëwee moo moo mu gis ne loolu mu nekkoon démb ci la nekk tey te gën ci dëgër muy taxaw ay valeur yoo xam ne valeur islamique la waaye du islamique rek waaye pour monde bi yëpp la mu nekk loo xam ne day jëriñ Sénégal ak feneen mu nekk mu ne donc il faut que mu ñëw siyaare si ko xool ko sant ko ak groupe bi nga xam ne muy groupe Walfadjri yi ànd ak moom ci liggéey bu rafet bi muy def nga xam ne ci àdduna bi foo toll da nga gis gannaaw ak réeroo bu amoon diggante réewu Iran ak Sénégal ba mu tax sax ñu dakkal seen jëflante mujj nañu nag jàmm dellu si su ko defee doomu Iran yooyu ne ba léegikat ñu ngi am yaakaar ci Sidi Lamine Niass ngir diggante ñaari réew yooyu dëgëraat ci fànn yu nekk. Euh, tey bu ñu demoon ba xaatami ñëw fi Ahmadinejad ñëw fi. Euh, président Abdou Diouf dem fa en 97 ci sommet bi loolu yëpp ci Sidi Lamine ñaslaaw retour des relations euh, reprise des relations diplomatiques entre la République islamique d'Iran ak la République du Sénégal Sidi moom moo ko dox après rupture am en 84 donc loolu yëpp luñu lu ñu leer la ba ci diggante moom ak demam ak président la République muy Macky Sall yooyu yëpp benn bu ci nekk réeroowuñu ci dañ ci doon dox directement mu nekk sax foo xam ne fu aw ci ay voies yu officiel ak yu officier yooyu yëpp taxaw na ci dox ko parce que ku ñu xam la en Iran ku ñu jox cër la ku ñu bàyyi xel la te porte yëpp dafa ubbi ci moom. si seen biir waxtaan àdduna ñu itam jëm ci yeneen tomb tomb yu nga xamante ni day wone kenn ku nekk ci ñoom ban nit rek la doon. jërëjëf góor gi Samba Ndiaye ñu ngi lay sant gërëm benn ban nag ci wàllu tàggat yaram Sadio Mané tabb nañ ko def ko muy joueur bi gën a xarañ ci wàllu football fii ci senegal Ibrahima Diop bu Jaraaf di joueur bi gën a xarañ ci sunu championnat local bi lee góor gi Sine Dieng ñu tabb ko def ko muy meilleur sportif Bombardier di mbër mi mën ci mbër yi di kuréel gi ëmb taskati xibaar yëngatu ci wàllu tàggat yaram ñoo ko fesal ci ab woote guñ doon amal suba tey jële fii ci makkaanu groupe Walfadjri yi soxna Seynabou Ndiaye moo ko teewe woon Ballon d'Or Sénégal 2013 2014 Sadio Mané. Le meilleur sportif euh, sénégalais de la saison 2013 2014 est Gorgui Sy Dieng. Ibrahima Diop a été désigné comme meilleur footballeur local. Le meilleur lutteur euh, de la saison 2013 2014 est Bombardier. ANPS daal dinay amal li nga xamante ne moo di vote bi ci locaux Walfadjri ci àllarba ji tànneef bi nga xam ne méttiwul lool bu ñu sukkandikoo ci ki ko jiite. vote bi yomb na parce que boo xoolee bu baax euh, à part lamb ji nga xamante ni bombardier ak Modou Lo nga xamante ni écart bi écart bi rëyul trop ah li leen euh, euh, li leen séparé rëyul trop ñi ci des lu yomb la. te loolu mooy wane ne journaliste yi déggoo nañu ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu tànn. journaliste yi yëngu ci wàllu tàgget yaram daal di nañu it rafetlu bu baax ni nga xam ne noonu la mbir mi doxee. vote bi daal jàll na si yoon parce que soo xoolee procédure bu ñu ko def parce que euh, différentes rédactions yi ñoo tànn euh, seeni meilleurs sportifs ñu andi ko dépouillé ko mais si dépouillement bi gis nañ ni yëf yi jaar nañ yoon ba ñëpp ñoo xam ne tànn nañ leen dañ leen tànn si euh, ay anam yu leer. choix yi ANPS def defe naa choix yu baax la parce que Bombardier gis nañ ne moo daan euh, Balla Gaye ki ki kiñ ne woon moo fi mën xam nga donc euh, c'est normal que mu jël affaire bi euh, Modou Lo moom daan na Eumeu Sène te kenn xaaru ko ci woon te Ama Baldé ñëw na daan Malick Niang ki ki kenn mësul woon na daan ba jusque là waaw ki jiite projet bi di na dem mu ngi dellu si ci ana naka la ñu amalee xalaatuk fal sportif yi gën a xarañ ci Sénégal. depuis 2000 la ñu commencé li ñu jàpp mooy ne que ñun ay journalistes yoo xam ne ci wàllum sport la ñuy yëngu. te war nañu xool nu ñuy dimbalee sénégalais yi sportif sénégalais yi encouragé leen pour ñu gën a dem kanam euh, loolu moo tax depuis mille ba léegi muy fukki at ak ñeent léegi at bu jot ñu xool ci sport sénégalais ñan ñoo gën a ràññee ci wàllum performance et puis bi ñu demee ba dem depuis daaw ba léegi comme làmb ji dafa am place bu mu occupé fii ci Sénégal dafa am fu mu toll ci sénégalais yi ñu boole ci làmb di joxe ay euh, trophée au meilleur lutteur aussi. meilleur lutteur saison 2013 2014 les nominés. ñaar fukki fan ak benn ci weerub décembre ñi nga xam ne ñoo di sportif yi gën a wane seen bopp ci atum 2014 te waa presse sportive bi daal di leen di tabb dinañ leen jox seen raaya ginnaaw nag ab soirée de gala bu ñu nar amal ci mbir moomule. jërëjëf soxna Seynabou Ndiaye ñu ngi lay sant di gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ni nii ñoo jàppoon ci xibaar yi ba muy yemb Hubert Asok Ba la woon Cheikh Tidiane Ndiaye ñoo fare woon ci xarale gi ci faaru gi soxna Ndéla Amar Gueye ci kàddu gi seen mbokk si Mor Ba incha allah rab bu 20 jotee soxna neen Jupiter Ndiaye dina fi teew fas yéene faram fàcc ci xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo ci kàllamay na sax te ànd ak yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal dig daje 23h lay doon ci yeneen i jotaayu xibaar jërë ngeen jëf